asalaamaaleykum mbokk internet suñu gaal 24 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme nag ni ñu koy baaxee rek di amale saa su ci émission bu mag bi li nga xamante ni moo di suñu gaal euh, suñu gaal nag baaxoo nañ di ci waxtaanee lépp lu nga xamante ni rek moo xew ci réew mi wala àddina euh, wërngal këpp rawatina nag émission bu mag bi nga xamante ni moo di euh, suñu gaal ma daal di am samay ñaari invité yi nga xamante tabarkaal la sénégalais yëpp ràññee nañu leen sénégalais yëpp xam nañu leen muy ndey ami Diaw ñu gën ko xam nag ci Sénégal 7 mu fay def ay émissions yu am solo waaye ñàng tamit nekk comédien bu xamante ni euh, comédien bu day waar la doomu yéen ji euh, ñoom laa invité tey ñu fas yéenee waxtaanee lan li nga xamante ni moo xew ci semaine bi euh, muy tamxarit tamxarit nag liñ ci mën a waxtaan bari na yaatu na lool rawatina ci jéeg yi ak ñi nga xamante ni ñoo di borom kër yi waaye nag dina am yeneen yeneen itam yu xamante ni dinañ ko cabaxal ci biir rek fa yéene fas yéene ci waxtaan du ma def rek lu may bàyyi suñuy invité ñu daal di nuyoo ndeyam yi maa ngi lay nuyu. xoor. <laughs> fara ñëw ma jow xoor. Demba Aminaaj. lu <laughs> baaw Aminaaj. <laughs> waaw sekk si ngaraar macha allah yow mbégte laay am pour jàkkaarloog yow ndax du tey démb la. dëgg la te bu ñuy wax nit ki man dama la fonk li tax ma fonk la mooy danga am nitu démb. te nit bu amee nitu démb rek kooku fonk ko jaadu na. Mhm. moo tax dama lay nuyu nuyu bu baax a baax te bu ñu doon dàq nag ñooy gi ànd nag génn Dakar. waaw dëgg bokk Saalum dëkk neexul. kon ànd rek ko ñu war macha allah. Mhm. jàmm. kontante euh, lay am ak mbégte bu baax a baax a baax bokk ak yow plateau bi macha allah. macha allah ay ayca mi ngi noonu moom day ami jaww gannaaw ba ma ko euh, dalalee ba noppi nag damay daal di dalal ki nga xamante ni moo di Oul Nianga Oul nag dafa ñëw indi euh, trophée bi nga xamante ni moom la jël ci deux mille 2021 bi xam naa nag bi normalement dans 4 mois la war a jeex. Ool maa ngi leen nuyu. laala maa ngi laa nuyu wootewu ma benn guerre jàkkaarloog sa caméra. non non xuloo ma maa ngi laa nuyu laala. Euh, non danga may fay man maa la nuyu. Euh, maa ngi laa fay. Euh, daal profité bi maa ngi laa nuyu <laughs> maa ngi laa fay. am mbégte am contentement jàkkaarloo ak aw. di la wax ne un ñaa ngi ñëwaat na sab xarita a ngi. un ñaa ngi ñëwaat na sa nit. un ñaa ngi ñëwaat na. jàkkaarloog Sénégal un ñaa ngi ñëw na. ponkalam lebum mi un ñaa ngi ñëw na bii téye mais on ñaa ñëw na maaw invité woon lancé ka bu gis ka ma di si am contentement trop moo tax bi ma oowee ndeysaan dama sawar pour jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy laala. da nga am ba pare jig ma trop nag. jig naa ma ba yàlla dimbali ma ma jël meilleure révélation de l'année. macha allah yàlla naa ma jigaat bi ma jëlaat leneen la ëpp loolu. kontaanaat si aw bu baax parce que aussi tamit comme li femme bi wax rek. daa ma jàppale quoi. te eh, di nuyu ñëpp nuyu may mbokki lébu yeeni kaw yeeni géej ndi tax todd ak kel ñangal tubaab jalaaw nuyu dëkki lébu yépp nuyu fukki pénc yi ak ñaar am mbégte ak contentement jaakaar la wa taxaw jii du yomb. joxoñ bi pour lan la non dama laa tëkku. ah kii est-ce que takkul di ko te di ko testé si ñun. <laughs> ak riij dama andi ak riij. looy indi nga ne riij riij. <laughs> Aïcha euh, ban yëg-yëg nga am ñu ne la euh, euh, yaa gañe lii prix bi meilleur lan. mooy révélation révélation. 2021 mm. 2021. ban yëg-yëg nga am biñ ne biñ ne la trophée baa ngi noonu ndam li <laughs> waa jarul réew ba sës nànk rek. mais xama laala li si gën a ne moo la tey doon aw xob sax. xoolal sa caméra. bañ aw xob ñu ikkati xob bi. Mhm. ne xobu mànga wi un ñaanga moo ko gañe man doyloo na ma ni ña ma joyee xob bi. ndeysaan. parce que allah dama ko doon defar amour di ko defal sénégalais. Mhm. tey ba sénégalais toogee ba kontaan. équipe prix révélation jox ko woon ñaanga ni mu ñëwee si man moo la am na ma mbégte ak kontaan waxuma xaalis bi mu àndal. yàlla na jig ànd ah, naa xaalis. waaw déglu ma expliqué ah, <laughs> defal naa ko rek man dama kontaan. parce que du man kese maa nekk Sénégal. Mm. du man kese maa doon ab artiste du man kese maa théâtre mais doomu aadama ba nekk chaque da am la la fal. Mm-hmm. ba fàttee la fal rek la fruit da yomb. Mm-hmm. te ba nu waxantee dëgg te yàlla rek a tax. Mm-hmm. man avant tout may mbokki lépp. tontu ñëpp ña nga maa seetaan. mais may mbokki lébu aw nag dama laa beral spécial lii du ma yëf ala sa yëf barki Serigne Babacar. ndeysaan indi nga enveloppe xaalis bi. barka alxuraanu karim. billaahi wallaahi li maa wax ni man dama ko tibbee si ma xol. ndeysaan lii du ma yëf yaaka moom. parce que dama commencé siw nii rek. u daw ñëw fekk ma yéen toogaax man. biir ma sa boppa biir ma sa kanam. yéegal moom niveau faa xamante ne on ñaa ngi eggu fa woon. donc tey ba ma demee ba jël lii. damaa kontaanaat pour di ko indiwaat si aw xaw ma ndax dinaa kontaan wala déet mais damaa kontaan di ko indi pour wax la ne lii c'est pour toi. merci beaucoup xaalis bi ñëwaale la. xaalis bi dama ko fàtte si oto bi <laughs> mais jël na ma numéro oto bi. <laughs> d'accord mu ngi noonu merci beaucoup jërëjëf euh, ma koy jaajëfal lu baree bari óol di la wax ne ndeyam yi teraanga la teraanga du mm, tuut wax dëgg yàlla euh, euh, yëg la rek parce que bari na nag léeg-léeg nga jàppale ay nit ba noppi commencé par man doo leen sax gisati ah waaw loolu ci ñun la bokk ci ci ñun nit mm. <laughs> commencé par man ci man laa njëkkee kon tey bu amaatee yëg-yëg wax dëgg yàlla ñëw indiwaat ko vraiment kontaan naa ci di la wax yàlla na la jik mm. yàlla nga ko gañe ay at yu baree baree bari ñu jëm ci tamxarit ndeyam yi waaw yow sa cere dégg naa pare na vingt jours avant. <laughs> waaw dama ciy laax rek parce que macha allah ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp ay artistes lañu lii yàlla na la jëkk parce que nit yàgg na fee defal nit teraanga te du am reconnaissant bi. te wax dëgg yàlla am nag oo ci mën naa ni jeune artistique comédienne yi mujjee ñëw ci nga bokk. kon boo góorgóorloo ba marqué sa empreinte ba am lii kon yàlla la jikk amiin te mu nekk sa wërsëg nga am ci lu kawe sa njort ci barke na bi sa waay waaw caat nga ne sama cere bare pare na dans vingt jours caat nekk fi lan laa fi ne wuyoo dama juum <laughs> sa cere pare na ñaar fukki fan ci ginnaaw yéen toggatu leen ah non Euh, lépp loo gisul rek dafa am lu tax bu ñu toggatut ci ñii la. ci góor ñi waaw. ndax dóoreetuñu àtteetuñu xeex. e bësatuñ ku daan jéematuñ dara ci kër yi comme ni muy kolkolele ay tànkam di waaje woo gelam boobu ñoom noonu la ñuy kolkolele seen i tànk daal di <laughs> joxeetu nu dépense bu mat. fu kër daal maanaam li leen ci war dara dara dara dara defatuñu ko. boo xafee tuuti sax dan naan la desalal ci yàpp tabaski bi pour ñu mën cee toog am lu ñu toggee tam xaalis <laughs> kon booba la dëkk bi yàqu. kaa bi na foofu. foofu la romb na fa sax romb na fa parce que boo gisee jéeg ji toggatuñu mooy ñii seen dépense daa joxeetuñu ko sax bay am lu mat bañ nañ ko ba léegi bu buñ xëyee boo ne leen dépense dañ naan la débrouiller ana jigéen ak débrouiller ana jéeg ak débrouiller ba àdduna daan baax góor da daan mate place lépp lu mu war a defal jéegam mu def ko ba mu mat sëkk ñaari junni ngeen di joxe dépense bëgg ci ndawal ndawalu xonq cur macha allah tubaarkàlla bëgg ci yomb bëgg ci ñàmbi te loolu matewu ko. mais laala dencal yeel yi ba tam xarit yàggu fi. dégg li may wax nii <laughs> kon xam nga ne kon li may wax nii. mais loo yàgg na fi. yeel yi tam xarit dencal yeel yi yeel yi xar mi. mais imagine tabas ba tam xarit. loolu yàgg na fi aw xam naa loo. waa dëgg loolu moom am na te day neex ci cere ji sax. waaw laa bëgg a dund denc yi yéen lay leen jox yéen xeeb ko bon denculee yéen ñu dee. <laughs> d'accord naa bi yeggali. <laughs> déjà li may wax ak ni moom mi ngi firndeel boppam yéen yoo xamante ne bii lu aadala la luñ fi fekk la waaye ak fii réew mi toll nii góor ñi nañu dimbaliwaat jéeg ji ci biir kër gi. xale yi jigéen yu ndaw jeune marie yi sonn nañu dee nañu tàmm damm nañu xam nga suñu maam yi bu njëkk sax daan nañu bu nawet jotaan daan nañ am meññeef daan nañ am dugub. daan nañ am mboq. ba dinañ ci jéem a fàggu loo xamante ni bi tey du ñu sonn dinañ am lu ñu toggee cere mais léegi loolu amatut imagine tey tey ba nawet bi tàmbalee ba léegi ñaari taw lañ amagum léegi bu fekkee ne loolu amatut léegi lan moo war góor ñi ci kër gi kilifa yi. ah mais nag euh, yow tamit dépense nag ndeyam mi xam nga ku ne tamit aussi da nga yenu li nga mën. léeg tamit yéen dangeen di xaw a kii daal xam nga nit bu fekkee yow xam nga fi poosam toll dépense 2000 la mën a joxe. ak kilo xam waaw mais léegi da nga leen xamalutu dara. góor ñi léegi xamalutoo leen dara di. waaw waaw loolu tamit kaa la. xamalutoo leen dara parce que dañuy nëbbatu parce que nit ki koo xamalu dara. munoo koo jëfal dara mënoo koo yërëm. te loolu mooy problème fondamental bi góor ñi léegi dañuy nëbbatu seen jabar yi bu ñu amee ñaari junni ci mbedd ma la ñuy ñeenti téeméer la ñuy duggee ci biir kër gi. wii mi li ci des <laughs> dugal nañ ko ci seen suuf dàll yi <laughs> merci beaucoup Ndeye Ndeye bi rey na ma óol óol oh, lan nga. non oh. <laughs> non mais bal ne ma óon quoi bal ma óon. ndax lan. parce que aw ka jigéen la aw ka jigéen la lii am si kër aw xam naa ko boo yi ñoo emul ba pare réglé wu ña ba njëkkoon ba daaraan gis. ma yor ba njëkkoon ba daaraan gis ma yor 5000. yaa ngi dégg. Mhm. yëkkati 5000 bi jox ka ma jabar bu njëkkoon ba. maire bi dina kërti kërti ba tegaat si dara te kenn du ko xam mais laa la ñii nii ñii nee leen defal wax la. ñun noo ay bon demee si bitig bi ñu weccaxu li seen rof ko suñu suñuy daala. ndax ñu daan daal tëdd ba guddi ñëw wisit say poche. <laughs> dóor looloo ngi ah yow de daal la dóor oh, looloo ngi am ba tey. xam nga noonu danoo sonn danoo teel a nelaw. xam nga grande dame dafa am. mais ñii c'est les femmes coop ñoom nañu lekk rek. moom laal doon ko góor. u nekk sa kër a bàyyi yor sa jabar. bëgg xelaat ëllëg suba ni mu mën a def boo amaat kër. mais li am na doo ko jox soxna si mu di ko toogee. dañu dépassé jamono joo jamono yi lekk kese. te ëllëg baa amulee kër ñoom ñoo la kaa wax de surtout bala yàlla dimbali boo jekki amam ñaareel te yaa ngi si ne kër a bàyyi. tey ña rey ñoom fàtte na ne daañu daan jox ñala lekk jamono bi ñu toll jamono économie la ñu toll pour man sa jabar sa jabar baa kaa jox moom di moyes war naa mën a wàññi leneen sax di ko denc mais ñi kii baa ko joxoon 10 ba demee bitig ba jaay 10 000 yëpp ñëwaat ba njëkkoon ba mag ñi ñaa jox dépense ba ëpp ña xaaj ka sax denc ka parce que ña ngay calculer suba baa amulee mais ñi talu ñoro ñi dañaa jënd in leen dugal a maatu jaay ma laaj jaay ma newee pataas batañse dayow ñaka dara li ñaa jënee bi ñu ko tooga pour sonal la aw u ñëw war a laaj weccit say bët la xoox wax nga dëgg léeg-léeg ñoo ko tey léeg-léeg tamit bi lëjum gi day bëri trop doo ko lekka muusi laag minu laa aajo loolu yaa mën noo la loo non laala bal ree ak dëggal ma loo mën la wuy mm-hmm. ka góor baa ko yore u kaa defar pour man bëgg kaa defar ka góor ka góor ka jigéen moo kaa defar. man bu ma la joxee 5000 même ba fekkee andiw laa weccit sax war naa la mën a jël laa xamante ne yaa ngi kaa denc na le mais tamit oh. parce que ak nit mënul boppam laa la. daa la am tey suba doo am. mais soxna si la gën a naw moo la ki xamante ne dafa dem ba mu wóor na ne cag naa amulaa la dépasse. mu càngati la mu ne la mu càngali la du càngati mu càngali la. ne la laa ma doon jox ah maa ngi ko doon dajale fële. yii la ñuy wër eh, am na fa ñoo ñoo baax. mais femme cop ils sont très dangereux Louis kii war naa wax la ñun dépasse doyul dépasse am ñaari junni ndax xaj ci kër. non dala moom dala jox exemple mais mais waaw waaw ñëwal ñëwal. lan la nga bëggoon wax. non seulement moom dafa wax ba yey boppam. ci naka. léegi jeune marié jéegi ndaw yi pour ñu jiiñ leen far dafa yomb. tey boo ma joxee te cinq mille francs dépense ma war cee def ndékki war cee def añ war cee def reer. fan laay jëlee lu ma jëndee ndawal gu ma def ci cere ji junni ngeen di joxe dépense. te ñoom dañu bëgg lekk lu neex te bu dañu falaa bëggoon ñëw dama ne dañu bëgg lekk lu neex ba pare mu ne ñoom ñoo yaay ji wecceeku ci mbedd ma. Ah, bu ñu tëddee ba guddi dañ leen di. làmbatu wisit dañuy dañuy làmbatu. <laughs> wisit say poos. ñoom bi gën a daa jekki rek ña feeñ xaañar bi rek. ñoom bi gën a dee ñoom bi gën a dee la ñuy def. daka normal. ñoom bi gën dee la ñuy def. Hmm. non seulement duñ la jox dépense bu doy ba pare duñ lay topp. di xool ba xam ñoom leer na leer naññ ne ñoom lan la jox doyul munu munoo cee dugg dan naan xaaral kii li ma ko jox doyul est-ce que amul kenn fu muy jàdd ko koy jox dara xaaral ma topp la topp la ba ca buntu marché ba mbaa ñu topp la ba ca jaaykatu këñ ba yéen góor ñi yooyu ngeen di def ah dañuy toppaate dañuy toppaate parce que ñoom xam nañ ne léegi seen dara matatut mais tamit nag te dañuy bëgg góor jigéen ñi mais ndey mi loolu loolu tamit ñoom du seen du seen kii de parce que yow liñ la jox matut yow yemal ci liñ la jox non dañuy dañuy jox liñ leen man si dañuy dañuy yam ci li leen liñ leen jox de mais tey tey bés boo ci góor góorgóorloo amaana sax ni waaw am dara am astuut am astuut sax dugal ko ci mhm. xoolal boo leen taajalee bool bi mu leer ni la tey dépense junni bi ñu la jox tey yow taajaloo leen ko ñoom ci seen xel fi ñu toog di lekk ñu ngi dute naan waa kii ginaar gi mu ma taajal fan la ko jëlee daal di commencé calculer junni ba mu leen jox ñoom daf leen di leer ni lan la jox matul. bu manqué bu bu xotaal la buñ la joxee junni tamit nga nga nga teg lu matul junni ñu ne dangaa bokk natt seen xaalis waaw dangaa bokk natt sama xaalis yaa ngi wàññi dépense bi yàlla boo doon xeesalkat nag wala nga bëgg lu baax ba mel ni ñun ndax ñun ñi ñuul ñu suñuy saaboog suñuy diw ñoo gën a seer ñu xees ñi mu daan ne li muy di woo boo commencé belli ñu ne sama dépense bi day wàññi yéen kenn du yéen yéen dooree woo leen atte woo leen xeex sikk ngeen ni taat wuy bañ sër yéen lu leen waxal yéen la gros mot teewu leen jigéen ñi te bëgg ñeme ngeen po rongoraa su xale yu ndaw yi 8000 francs yooyu ngeen di def ci seen suuf daal yi bu fekkoon ne da ngeen koy dajale pour di ko indi ci kër gi sax mu neex mais xale yu ndaw mais xale yu ndaw yi ci mbedd mi ngeen koy jox laala moom la benn affaire yéen da ngeen di bëgg a jël pépp jël pépét gis nga ni jigéen ñii boo hmm. man bu ma wax booy de boo yi gis ni ñoo gën a danger maanaam nit ba la yabee ba wax la dara rek am na la mu julli si aw. dépasse ab 5000 laa joxe kan moo ko santee yokk. ah mais tamit nag. waaw taxawal non non non defar ndànk. non non non waaw waaw hmm. kan moo ko santee yokk parce que toog na ba tam xarit mu ne xaar ma yokk. mais tam xarit yow waroo xaar ñu naan la yokkal yow yaa war a yokku. dëgg yàlla am na ñaa xamante ne d'habitude day ko tàmm ba ñu jëkkër joxee ñu góorgóorlu doole ci laneen loolu si kër gi la am aw xam naa ko mais tey du ma takkal laal la mu toog ba taxay ma jox ko 5000 mu andi ma dépense ab 30 000 ba ma neex ma ne ko faa ko jëlee mais ba fekkente ne woon laal la avant avant wóor na ma ne si la ma def mu doole si ah tey ba doole du ma ko laaj dañu feem. dëgg la. Euh, euh, euh, ndey mi li ma xaw a jaaxal tuuti rek mooy ci li muy wax ne yàq la ñoom boo leen ko tegalul dañuy dem feneen fu leen koy tegalee parce que ñu bari tey ñu ngi wax naan bu ñu demee seen kër coro yi du lekk suur li muy togg baaxul mënul togg parce que ginaar yi ñu leen di tegal foofu mais dañuy fàtte ne li am fii ak li am fee du benn fii lu fa ne rek yow yaa ko fa joxe. Euh, lan ñii lu tax ma yërëm leen mooy que ni. yërëmal sa bopp. ñoom li ñuy bañ ci seen ah? biir kër moom na yërëm boppam. <laughs> ñoom li ñuy ñoom li ñuy bañ seen biir kër moom mi la wisit ay boppam <laughs> yërëm. ñoom li ñuy bañ ci seen biir kër yi loolu lañuy nangu ci mbedd mi. Mhm. boo xefee sax boo boo xefee sax bu ñu demee ci seen kër coro yi. Mhm. ñu sor todduloo leen seru naan di tegal leen ci ay fer ñoom ñi ñu ñu ñu wadduloo leen ko. ay seru naan li tegal leen ci ay fer. li ñuy maanaam boo déggee ma wax loolu mooy que ne. Mhm. ñoom li ñuy bañ ci seen biir kër yi loolu la ñuy nangu fale. ay ay ay ay xaru àll la xaru kër gi la ñuy doon. waaw noo gay mbedd mi xaru kër gi. waaw noonu lañuy def. ba pare li ma ci gën a jaaxal mooy que ni xale yu jigéen ñi nañu yeewu góor gu ñëwati sa kër di xas jabaram duma la nawloo xamal ni kooku na mu xas ba na mu def ba xas aawam bu ñëwaatee bu ëllëg ci sibir bu la amee noonu lay toogaatee ci keneen xas la mhm. ñoom loolu seen jikko la mhm. ñoom nay nay nooy rek fu muy nooyee rek fu muy neexee rek ñoom foofu lañ bëggee te ñoom dañoo bëgg man daal ñii damay xool ba yàgg lu ma leen bëgg a wax sax man duma ko xam quoi. Hmm. c'est que c'est que la. parce que dama leen di jéem a canaliser ba sonn. non kii du ma ko dégg mënoo leen comprendre mënu ma leen comprendre. noonu man laaloo ndax canaliser wu sa bopp xaaral ma expliquer laa la. kii bi noo toog daanaka yaa ngi defar cere ñaata jour. non ah, ah, man dama ko doon tooñ rek naan ko dégg naa si cere pare na. loolu la ñaa defar tooñu laa ko de loo moo am kii cere da la nëkk xam naa nëkk. déedéet laa nëkk cere ji nëkk. <laughs> kii ña cere tamay daa kaa lekk si biir la daw. Hmm? ah ënn. nëkk la nu xam noonu bokkul ak ënn. ok. cere ja yàgg ja wow joo xam ne daa kaa lekk mu dina safaat leneen. Hmm, cere day day day jëlaat 20 litres ndox pour mën a sekki. loo daa baax mais loo baaxul. Ah, loo baaxul ñii ak tayal ah, xaaral xaaral gis na booy ak tayal moo ñu jàpp tayal fi ñaak yambar moom mu ngi naan la nooy yéen a gën a bëgg la nooy ndax ka jël cere di far ko 5 jours avant tamxarit Ah, con conseillé ka la mais ñoom defaruñ nag ñu ci bëri dañ leen di defaral. loo moo dul yoon ñun danoo génn in la gis ña xamante dañaa difar cere ñun danoo dem si ñi la difar cere in toogaa ñoom ñu xaw war xam ne jigéen ñi bokku ña kii ay moroom a ngi fi dañaa dëbba yóbbu sa machine ba wali in wal ba pare andi la cere ji tegal la ka di la ka arawal di la ka arawal toogaa aw. ba cere ji pere ñu tibb ab dànga in may la ñi bañ yaakaar doo lekk ab dànga xam naa ab dànga moo la bañaa toj cere ji ñaa duur noo yi gune naan paxa may ab dànga ñii ñii ñi ñay doom dañuy ñaan ay dànga euh, sànq dégg naa la nga am looy wax ci weccet bi nga ne ñoom boo leen joxee euh, euh, ndeyami sànq dane buñ bu ñu bu ñu bu ñu naka bu ñu yoree ñaari junni dañuy wecceeku jël 8000 yi. waaw dañuy wecceeku jël 8000 yi dugal ci seen suufi dàll yi. Mhm. léegi bu ko defee boo ñëwee ne leen jox ma dépense ñu ñuqatil la poche yi ne leen ñoo ngi nii te xamuñ loolu sax da koy da leen di um ñoon umaale ñu ni ñuy ñuqee seen poche yi noonu teg nii di um umaale ñu mm-hmm. loolu lañ def daan la am ñeenti téeméer lañu yor war a xam ne wala léegi ba beneen bi opérateur yenn yi ñëwee bu ci mel ni yooyu noonu parce que publicité bi laay bañ mm-hmm. ba ñu ñëwee ba tey ñun ci lañ am problème ndax waaw léegi bu ñu ko deful ci seen suuf daal yi dañ koy wecceeku daal koy dugal foofa mm-hmm. yor seen code xam nga loolu doo ko mën doo doo ci mën dara ñii ñu ngi nii rek du ñu yàpp du ñu jën ka teexee ceex leen tane. waaw jërëjëf xam nga euh, moom mi dane danoo jël nu weccit dugal ko sunu suuf yi daal la te bu nu kaa dugal sunu suuf yi daal la defe naa nu nga au fond kër ga. nu nga nag ginnaaw. <laughs> client gi maa mu ngi ñëw. kii dana wisit. kon dëgg la ko li ma wax kon ah, dëgg la kon kii ni mu def ba xam ne danoo jël wecc di ko dugal suñuy daala c'est une femme visiteur. kon li ma wax kon dëgg la kon du ñu nelaw guddi. <laughs> bu guddee lu ñuy def takka <laughs> même laa la ba génne wu ne maa ngaa doxantu sax ñoom ñam xel du dal si aw. ñii ni booy yi sëyetuñu laa la li laa xam naa ko ab gune laa booy yi sëyetuñu. est-ce que ñoom ñu ngi yore jabar ba tey. ah kay bañ a yor añ reer ndiki lépp dala mat. ñoom na day bëgg lépp la mat chaque jour dara du manqué loolu yow mi wecceeku di suuf daal danga joxe lu mat yow mais aw lay kaa joxaat suba li nu weccaw in réserve ka dañ ak suñuy daal mm-hmm. ba nu xëyee in rucci suñuy daal nee téyel dëgg la man li ma bañ moo la ku góor kam ne du joxe laa la fii kenn matalewul jigéen ñi kañ a topp doom am birig kañ a topp inaa yàgg sa kër a bàyyi inaa yàgg sa kër a yaay la jël say doom daña terew ñama ni karang lab yabay <laughs> ñoo ñu na wàcc la dëggaat ñee doom maa papa mm, mm. bàyyi yàggee si di jox fa laa la ci benn néeg say doom màgg naan paa bi deful dara ndeke mère bee lekk lépp <laughs> kër yi law dugg yépp ani paa bi ñëwee na dee an mère bi mu nga <laughs> li maa <laughs> fi bi yow an sa papa bi mu ngi fi mi ngi waaw naay bi an sa papa eh mi ngi fi bi naay mère bi naay duuf ko tànkam naa ni fokkal la <laughs> guddi mu ne daal doxantu ji ñaari maire yooyu ñoo nekk ni ndey mi ndey man loolu buñ ko waxee. laaj am papa. waaye papa mi ngi fi may ko jàmm. ndey mi dana bañ dafet bi. <laughs> ba sa papa ki mu jëlal kër paa boo <laughs> ndey mi ndey mi tey euh, côté boobu mu wax noonu man dama ciy dellusiwaat tuuti. Hmm. parce que jigéen ñu bari tey euh, euh, dañuy wax ne jigéen ñi ñu ngi stressé wu ah, ah, ñu ngi am ay ay goiat lañ koy wax xaw ma stress moo leen jàpp jigéen ñi amatuñu karaw ndax xalaat ñoom bu ñu jógee ne borom kër yëpp dee nañu. waaw parce que ñoom ñoo rey seen bopp. ndax ñoo teg ci seen bopp loo xamante ne bi gis nga boo yorut wéroo say nelaw doyut hmm. bul indi bul jël doomu jàmbur indi sa kër. dégg ndax jabar lu da nga koy mat rek def ko da nga koy mën ba pare dëgg la parce que boo indee doomu jàmbur joxoo ko mu lekk joxoo ko mu naan heure boo xëyee ne ko débrouiller wala nga yëkkati 500 francs jox ko wala 2000 francs jamono bi léegi euh, lal la jën bu baax sëdd bu baax sax 2000 francs lay jar léegi boo ko joxee 2000 francs mu war a tocc ci dugg ci bopp koñ yi leb naa leba leba leb bari na fi ay jéeg joo xamante ni bi dañuy dañuy jéggi dañuy teggi koñ du fépp la ñuy aw parce que leb nañoo leba leba leba ndax dañuy dajanteeg ay góor yu yaafus Lalla jéeg ji dee nañ buñ la defu buñ la terroriser wul ci wàllum dépense ñu ngi lay waxal ay wax yu sew yu bon yu suuf yoo xamante ne bii doo comprendre da ngay góor góorgóorlu ji ba ñëw taaj sa añ wala nga taaj sa reer wala nga defar ko ndékki mhm. xoolal da koy lekk ba pare football la bool bi tanaan la lii nga lii lii nga ma jox de li joxuma la ko kon fan lañu jëm fan la ñu muccee fan lañu ñu muccee li laay war ñun yàlla moo ñu mooñaale ak yéen allah kulli alin dañuy ànd. boo leen waree régler boo leen waree régler. non non ñun ñun ñun ñun parce que jigéen bi bàyyi kër yaayam kër papaam ñëw sa kër bàyyi na léppam. Mm-hmm. góor gi jël xaalisam def ko si aw jël la woote. ñam may ko si faratay yàlla sunnas Mohamed yóbbu la këram. Mm-hmm. deful effort. Mm-hmm. def na effort. waaw mais tamit aussi effort bi dafa am lu ko war a mottali tamit. lan la moo ko parce que jabar dëkkal dëkkoo la ñu wax. waaw. ñoom seen dara matatu. ànduma ak moom de man dama la wax rek li nga xam. laala ñii nii laala eh, gis nga laala ba ngaa dégg dëgg ñii seen dara matatu. dëkkal dëkkoo boobu ngay wax noonu. aw baa ñeewu sëy saw ne dara matu fi mais dara du mat. léegi jéggi mais baa ñeewu sëy. léegi xale. yërëm sa jëkkër mais dara dina mat laala. laala léegi jéeg gi ñooy fay ñooy fay ndox. fayam ndox jéeg gi ñooy fay courant fayam ndox fayam ndox. léegi jéeg gi ñooy fay appartement jabar gi ñooy jënd courant ndax léegi facture courant presque jeex na fi ñooy fay ndox ñooy fay apartement yi ñooy dexe dépense ci seen biir kër yi ñooy dem surveiller xale yi ci école yi ñooy fay école lu xale yi. dégg naa. boole koog nag chaque jour bu ñu boo toggee taajal leen ñu naan la si ceeb bi saf na xorom wala li nga togg neexut ak lu kenn xamut te génnewut seen poos. non non. ñii laa la bal ne on déedéet. ah déet moom man man ah. man loo ma wax tooñ. waaw defal naa bal. waaw defal na moom moom dafa wax rek. moom dafa wax li nga xamante ni loolu mooy. gis-gis moom loolu laa gis. ñii. mënu ñaa fayam njàngam école ñii mënu ñaa fayam ah, appartement déet jigéen ñi nag ñu ngi fi di fay jàng école yi fi ñu jàngam école a ah, fu ñu fayeewul jàngam école mënu leen a fay jàngam école ah kay déedéet yéen deen am ay njaboot yaa ngi dégg ñeewantal seeni doom mais li yéen la def kenn santewu leen ko waaw parce li ngeen war a def defu leen ko nu ngay def la laa bëgga daala jéeloox nit kër jéeloox laa la kër mu la sañse la lekka la naan naam laa la amul dara mais mu ngee defar boppam ñii ànd bi ñaa ànd moo la xoolal laa la ni mu mel xoolal kii ni mu jongamaa xoolal kii nu nu féetee kër xoolal kii lim maa def pour lan ñii léegi loolu ñaa see moo tax yenn affaire ñoom ñoo kaa dugal si bopp daal dem ba aw sa jëkkër li mu laa jox si xaalis du la doy daal dem une yaa ngaa lebi yaa ngaa liggéey te kenn santew la lool. bari na fii ñee la fayee appartement ñiy jëkkër santew ñaka parce que day laa bërgal du ñu la wax dara day laa seetaan góor ñi day laa seetaan <laughs> mun si ko <laughs> parce que seen dara matatut yéen bañ ngeen ko ba léegi bañ ngeen ba léegi sax bañ ngeen ko ba léegi sax yéen góor ñi léegi duggatu leen ci cas social sama genre gi bañ ngeen ko bu dèjà ca doxaan ga rek déedéet ca doxaan ga rek la ñuy ñëw naan la qu'est-ce que tu fais dans la vie ñëpp fi takk cas social may ma ma eggale gaay ñëpp aree cas social ñu seen liggéey bareyu ah non jigéen ñi moom ñu ngi liggéey non kenn waxul liggéey ay trente mille femme ménage yow kenn waxu ñoom ñoo créé dem seeti femme ménage léegi kenn santew ñàkk parce que bëgg a leb mat laala mi sañse laala nga jonga mag téye sa di la bëgg a raay wax ja bare laala mi jonga ma mais yàlla moo ko def mu jonga ma la laa si man mm-hmm. wecc taxul laala jonga ma ñii noonu la ñaa séyee d' accord léegi ñu daal di deltuwaat ci ndànk rek ci li nga xamante ni moo di euh, euh, euh, tamxarit ji reeru tamxarit dama gis jeeg ji di ko laaj ñaareel yi ñetteel yi ñeenteel yi ndey mi ban gis-gis nga ci am dem na ba bay bay bay créer problème. Ah, ñaareel yi ñu gën de. Hmm? ba pare. <laughs> waaw loolu dinaa ree ñaareel la ñaareel yi kenn du ñoom. yow da nga takk ñaar wala da takk ñaareel. waaye takk ñaar ñaareel yi kenn du ñoom <laughs> ñoo tene ñii de ñii. poo guddi wisit la yaa de wisit. parce que joxewu leen. ñi baa ñëwoon armée ñu mën a taxaw boo doon joxe kenn bàyyi wisit bàyyi wisit nit ñeeg jàmm ak. dañuy wisit dañuy wisit day ka def boo boo joxewul daal ñu visité say. ña ngay joxe mais ñi li ñu aawa yi gënee ña ñaareel yi kon astafurlah ñaareel lii ñu gënee bokkul sax du benn. d'accord ndey mi reeru tam xarit gis nga lan la àdduna lu reeru aada la woon bu rafet moo taxoon mag ñi bàyyi ko fi reeru tam xarit da daan euh, li signi lim daan signifié mooy que ni lal la am nga am nga euh, wujju dara ki am na nu mu demee mu ne xaaral ma dem ci sama aawo mu jox ma reeru tam xarit mm-hmm. noonu lañ ko daan defee pour rafetal rataxal diggante yi mm-hmm. mais dafa dem ba léegi reeru tam xarit yi reeru tam xarit bu ñuy dem di ju ci joxe jaaro or reeru xar ah, am am na reeru xarit tam xarit bu ñuy joxe ay ay comme ni ñuy def suukaru koor fitna bi ci ñin jeeg ji am loolu moo am ci ci ci ci ci reeru tamxarit mm. nga xam ne kon léegi dañ doon seet aada bu baax ñu continuer ko léegi aada bi aada boobu tey dañu ko dem ba bonal ko parce que reeru tamxarit yi léegi da nga ciy gis ku ciy laaj koo xamante ne bii bu te reeru xam xarit bu njëkk ba bu ñit ñi daan laaj ceeb lañ lay jox wala ñu jox la dugub dugub wala loolu parce que liñ taxoon ñu ko daan laaj avant tamxarit bi di jot pour nga am loo xamante ne bii di nga ko mën a toggee mais léegi da ngay dem ba mujj gi booy laaj reeru tam xarit da nga naan bugguma dugub bugguma ceeb xaalis laa bëgg mel ni comme si yow léegi loolu ngay laaj noonu force la dañ la ko war a jox forcément te aada bu rafet la rek mu wàccoon ci <coughs> àdduna bi mag ñi fekk ko fi daal di koy continuer mm-hmm. te loolu da daan rataxal diggante mais bu ñu demee ba leneen di ci am kon yaa problème mm-hmm. peut-être xaj na ñun ñoo defatut li ñu war a def yéen jigéen ñi. may ma eggale bàyyi loolu moom la bàyyi ko rek. ñoom la aña ah, problème bon li ñu doon wax léegi ñëw na si ñoom. Mm. na leer. <laughs> peut te xaj na ñun ñoo war defatut li ñu war a def wala jikko yi ñoo yàqu. doy na waar. ñëpp yàqu parce que bu ñu demee ba reeru tam xarit war a indi xuloo ak xeex nga xam ne. mbir yi doy na waar léegi. Mhm. parce que léeg-léeg sa dégg naa da ngay dem ci nit laaj ko mu gantal la yoruma wala dara. nga ne waaw daf ma xeeb. wala nangam ak nangam te comme ni mu ko waxee rek euh, lu rafet la euh, ñu ko daan def pour jàppalante di ko daan def pour ndimbalante waaye gis nañu fitna yi mu ngi ci commencé di ñëw comme day am ni nga ko mhm. waxee noonu. Mhm. Euh, dem nañ ba di ci joxe jaaro or di ko def ay teraanga ah mi ngi bëgg a compliqué mais góor ñi tamit aussi gis nañ ne dañ ci bokk. parce que léeg ñu fekk leen ci grand place yi wala dara. ñu ñëw leen laaj reeru tam xarit am nañu koy ñu koy laaj yéen wala. waaw ñun dañoo laaj dara tamxarit. waaye kii yow yaay laaj dara tamxarit. noo jigéen ñi dañaa laaj. Mm-hmm. fekk ko góor sa sa ko góor laaj ko dara tamxarit. yow joxe parce que ñun wala ci ànd ak aawa nangam nangam ñaareel comme ni ma ko doon waxee. Mm-hmm. et puis ndax rafetoon ndax nice. Mm-hmm. xaw ma nag ñoom ñoo côté Dakar mais nu côté yéen bëri non loolu moo fa ay ceeb dugub. ba léegi mi ngi am waa yooyu moo la am. joxante kafre xaaxataay. di la yéen nag du dakaar dakaar sax moo amee appartement ñun amuñu appartement ñun pour masse. <laughs> mais ñun néeg yëpp a tolloo. ñun ñëpp ñoo yem. foofu moom ñun noonu la noo dundee. Mm-hmm. mais mais mais ay jëfante waaw reeri aawa reeri ñaareel. Euh, même fekkee bidaa la mais rafet na ko mm-hmm. doon na laa xamante ne ni ne kaf ñi xaaxataay ñi ree jàppalante ni mais comme que ñoom jigéen ñi moo li ñu doon wax sànq nii rek jigéen ñi ñoom bañ a seetaane ñoom kese. u bàyyi ña ñoom ña daje kese dina tukkal àdduna parce que kii ni mu wax léegi ne la reeru tamxarit amoon na ay jaar yu oora dem na ba am ay jaar yu oora ay piisa ay jasneer léegi doonatul aada léegi jox ma par la force ba ma demee laa la joxuma te noo bokk kër mu ngi liggéey la yéegax wàcce moom laa la joxuma dama kaa jàpp een mais pour diggante wëjë ak euh, moroomam mu rafet moo doon tax demalante yooyu la am. Mm. mais nouvelle génération bi ñi maa wax ni la wisit poos yi ñii ñoo ñoo ko yàq. Mm-hmm. bu njëkkoon ma daalaan reer ba suur im jël ngandab dankab cere dëpp bool bi si digg kër gi tekka kër gi ñëpp ka nekk ñëw wër bool bi ñaan sa soxla ñu dëpp fa lekk kii wa euh, cere bi ba suba ci fajar léegi loo amatul. Mm-hmm. la moo tax amatul. ñoom ñii jigéen ñii tas nee kër yi. ndax lan bu guddee paa ba nekk wala meer ba nekk reer fat sax njaboot yéen dugg seen biiram ne parce que kii li mu wax moo indi ba si reerab diw du gën a baax ma reer reer ba gën a baax dafa am. xaw baa lekkee ndame man ma poñ sa kii lekk ginaar ba nu àndee kan moo kaa xam yuuxu leen man añaguma añ leen ba suur ma ne hey yéen xam ne kii est-ce que añu am déet. <laughs> am na laa xamante ne nii ay tànk la am. Mm. dala dox mais ba njëkkoon ba sa diggante yàlla paa yi day daan sañ say jëm caaya ja ndaw teg piliyaan bi wéeru si toog joxe nee ñab joxe nee ñab reer ba yàgga mais yi dugg yi ba ñëw teg lépp defar ko macha tubaarkaal ay ay café ay bóor ay meew ah biridel yi yëngal riij ba ba ba baareen mii sax suur kañ yomba lay daan teg maire yi yomba am naa yomba. Mm-hmm. yomba kese lay daan dóor. dóor fële ñaari batañse batañse dana ko tàmm di ko lekk na baaxal lekku ne day na la batañse lay laa tegal. c'est c'est lu tax lu tax yow yow lu tax nga la ñaam yi puut ji tegal la ñaam yi buun ji jalal la ko. yéen yaa woon daaw yaa mu doon bañ ña rof ko suuf mu accompagné cere ji. <laughs> d'accord. mu doon cere kese am ñee. Euh. wala fas dara du la dal. mais ci lay tamxarit ja gune yi ma gis tey nii baa ko lekkee fajar bañ a laal nodd fajar tëb naal ba yàgg daa la gis paa beeg meer beeg kër gi ñëpp la juyoo yori setala ndax buur baaxul dalaa riij may ma boobu may ma boobu óol ma ñëw ndeyam yi damaa bëgg nga tontu ko fenn rek mooy fi mu waxee ne yéen jigéen ñi ku leen bàyyi ngeen tas réew mi waaye ñoom ñii tamit bari na li ngay ànd ak Ousmane Ndiaye ak Demba Ndiaye mhm. Ousmane Ndiaye takk ñaareel nga xëy na da ngay takk ñaareel mhm. maanaam dañuy booti dañuy dañuy dañuy boot jotlewul di yootu gamb di ci teg. dëgg la. loolu mooy seen problème. kuy wàccu di kuy yuut di të boo wàccoo dee. ah bari na dépense yu manqué yu xam ne ñoo ko manqué. ñoom ñoo ko teg seen bopp. Mhm. parce que tey tey mënoo takk euh, aawo yow sa dara matut aawo bi mooy boo xëyee suba danga daan ko débrouiller. Mhm. wala demal lebi après dinaa la fay. Mhm. débrouiller. débrouiller débrouiller c'est-à-dire que débrouiller boobu góor jigéen ñi di débrouiller fekk yow la ngay débrouiller yoom ñoom ñoo ngi koy dajale pour dem ko takkee jee ñaareel mm-hmm. lan lay bañ a jox ñoo ngi koy jox benn faatu ci koñ bi mu leen di ñooñal ay ginaar yow amaan na sax sa waa kër som bi la ñuy reere bari na fi ay jeeg joo xamante ne bii tam xarit du ñu togg cere parce que amuñu ko mm-hmm. seen jëkkër joxu leen ko te dañuy fexe calculer dof dof lu calculer ba calculer ay gi fexe nu ñuy ak ay yee ca ñaareel ba ñii. dañoo doy waar. d'accord léegi ndey mi nga tontu ci euh, euh, seen cere ji wala ñu bàyyi óol ñëw ci óol nga ne seen cere tam xarit lu ñu koy def. non mais loolu tamit aussi dafa xew ku fi bomb yéen ku leen bombalul cere ngeen wëri cere mbomb. waaw defal effectivement bu ñu leen bombalul ñu wëri cere. dañuy xaar yekku yekku lalla bi ci koñ bi. waaw loolooy problème bi nday ami togg na cere taaj. boo yoree bool bi gis cere ji xaw a somo doo laal cere ji. da ngay xaar cere laal la. laal la parce que xam nga ni chaque année moom tubaarkàlla macha allah. tomate day saf waaw. Mm. yi jox na ko lu doy. tamaate ja day saf yàpp wa ñor. tubaarkàlla xam nga man li ma doon expliqué mu ngi nii. nee na la di far cereem kapi jox na ko la doy. waaw parce que góor gi kapi góor gu baax mais yow cere jooju yow yaa koy xaar ah. léegi waxal ci cere yi nga ne léegi cere yi luy sa problème ak cere yi cere yi li ñu ci def yëpp da ci war a dem di. moo moog toog di daj bu leen asalaatu xayru mina naw mi. bi cëf sa cëcala sa bàyyi cëf ak cëcala mère bi cëf cëcala gi cëf cëcala bi nii ma ne ka nekk campagne on cere joo baal ci cere ji moo bañ moo ma gën a cere ji moo bañ di ñaa egg rek jël ñeex mi rek dóor dóor si yomba ji teg si yeel yi mm. teg si ñaari suuf xëcc li ngom yi puud aja bundi jàmbaka si biir. wala sax li ngom ak cere li ngom si cere. li ngom li am si cere bu ñu jógee li am si cere. ñi ñoo gën a garaaw la léegi. laala li ngom defal naa ko waa laal déglu ma defal naa ko beurre fa mu amee si cere. li ngom mën naa waa taxawal. Mm. beurre fa mu amee si cere. beurre. u defar beurre. askan wi. u defar def ko si cere ji. rasin pour couscous la woon. u indi raisin. def ko si cere. mais couscous couscous cere tubaab la. non du cere jor nu cere tubaab cere tubaab a ji ñuul amu fi. waaw yeggali waaw eh, la nu wax. waaw yaa ngi dégg. in jëli ji meew xooyal xooyal suukar meew mi sorti ko si biir cere ji jambaka cere ji daa kaa xool usuur te lekk gulaaka. Mhm. ndax neex. ngi se mais doo ko lekk ba guddee. bay ne timis jot na baa tegee cere ji doo ko mën a lekk ndax li see am loo fa mu amee si cere laala li ngoom war naa am ci cere bu njëkkoon na maire yi baa ñu tàppoon tey jii maire njëkk yi baa ñu tàppee bañ a jox u tegal ña cere jox ña meew tegal ña buur day na naan lii fan la jógee mm-hmm. cere ji ndox ma tàngami laa see def jël timaata jot doy def kasi togg ka naturellement xamulaa bot xam naa ak bot bot déedéet bot dee ko daan jënd si marché bi di ko def si cere mairie bot lay daam cere bot. lan mooy bot. bot xamula ak man lu ma laa expliquer bot parce que xamula bot. d'accord mi ngi doon ndey bi bu nekk lu am solo euh, waxtu wi xëcc na jëm ci jeex euh, euh, temps bi waroon na gën a yaatu dóor. lii deux heures de temps la woon nga bàyyi leen ñoom ñaar man fi mu nekk nii dama gëlëm xaw ma xaw ma fan laa war a fan laa war a féete ndee mi hmm. ma bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi lan ngay doy dolli boroom kër yi rek ñu ñu ñu jàpp ci dépense u tamxarit bi waaw li ma leen di dolli rek mooy que ni nañu yërëmaat jigéen ñi sonn nañu góor góorlu nañ ba sonn ndax ki nga takk jëlee ko kër ndeyam ak kër baayam muy góorgóorlu pour suturaal la ci biir kër gi yow tamit suturaal ko mais ndeysaan góor jigéen ñëpp dee nañ boo demee si hôpital yi jigéen ñi kese nga fi fekk. wala góor ñi goitre nañ ñii amee nañ cancer. Mhm. xam nga mooy loolu. te loolu yëpp góor ñi ñoom ñoo leen ko teg. Mhm. foofu daal daa leen di tàggoo ba beneen yoon rek di wax ne amoon naa contentement bu baax a baax a baax teew fii macha allah. ma bàyyi la nga tàggatook askan wi. nuyuwaat ñëpp rek amaan mbégte contentement jàkkaarloowaat ak yéen. danoo wax nii rek pour defar affaire bi ne kas nekk mën a xam su wax mais ñun ñëpp noo am Sénégal ñun ñëpp benn loolu kenn mën noo jaxase. ak li nga xas jigéen ñi. waaw kenn mën noo jaxase man wisit mi la ma mën na comprendre wisit ay poches femme tëri danger mooy wisit ay poches. ba pare léegi taaja boon amatul. ba njëkkoon ba man dama daan sol ab garambo jël ma kanam puudar ko ab doom xaaral jël ma kanam puudar ko ab doom defar ngandu taat. sol sa garam bu waaw i dem waaw waaw i dem taaja ji mais rek ñu ne ko taaja boon ña jàppal man de damaa taaja boon <laughs> kala ka ka fee jàppaate Macky man <laughs> préfet damaa taaja booni da taaja boon cosaan la wuyul fee wuyul fee taaja boon cosaan la ah. fii laa ko fekka fii fii lay fekka fii lay kaa bàyyi préfet man damaa taaja booli ba sooba yàlla damaa génne yor ma yor ma bidon am 20 litres yaa ngi dégg. yaa dugg ci jag boo. waaw jël ma mbuum maam sol ka jël musóor gi teg ka puudar ma kanam génne taaja boon oo xam ne préfet. noo koy waxee au niveau nga taaja boon. noo koy waxee taajaboon wallay su ma taaj bi abdu jàmbaar ñaari malayka la wallay si kaw la jóge wallay ay daanu si suuf ay mun yaay ji ay ndegem julli ay mun baay bi ay ndegem julli ay jagat ka jagat ay funnu ka jagat jëme ay saa jiina ja ay saa safara ja ay du fi am <laughs> yaa dugg ci Jibi Jàllo Jibi Jàllo la du fi amee ah li nu fi taaje boon wala jëpp. waa neex na moom neex na. ji bi wanaa dafay am. waaw neex na la ko may ba déwén la ko may ba déwén. may man damaa ñaan préfet <laughs> préfet dama sama ba di a ñaan na ma fekk yéen aw préfet nuyu ñëpp kontaan si ñëpp. nuyu may mbokki bu yëpp laa la. Mhm. Euh, et puis kontaan trop. nuyu woon nga ñëpp tàggatool waxtu yi jeex man li maa tàggatoo moo la oto la ma bëgg ba tey aw ma oto laa la. <laughs> j'ai besoin de voiture. vraiment. ah lébu yi dañoo mel si dëkk bi. waaw vraiment fukki pencee ñaar. ñoom jaraaf yi su ndooy. suñu xarit bi bàyyi baabu ndooy. ay ay ay Ablaye Matar Diop. ay Ablaye Matar Diop ay Basirou Diagne ña ngay maye mais mayu ñu woon ñanga duñu dara nee ma may. est-ce que doo xool Kunkande ba xam. Kunkande man <laughs> dégg naa daal corona. waaw. baax na si moom. <laughs> suba nag Kunkande jëleenu jëm. ah kii corona kay mënut a xar géej booba tey nit ñaa ngee wax man waxuma dama noppi ine part ñëpp di ma xaar kong <laughs> pour dama laa neexal moo tax may naan koŋ fexeel ba say perfection yoo ñu la def diggante fii ak fajar développé dindi yëpp u nokki normal u jonk taxaw sampa sa bopp dëggal sa bopp man seet joow la maa ni xam naa ay joow din ma paas nag cinquante mille taxaw sa ginaaw yor may joow yor ay pukaar gis naa géej gi yow ban nga jàppee ne ñaar tëj ci pukaar géej seeg yelaate ne wala porté malade dara dal la jogol moom ba aayoon oh. kunkante ba aayoon oh. mu changé teyob dama daam bo <laughs> ne ñu jërëjëf wol du dara merci jërëjëf nu nga ko xaar sumbu jur baax na woon merci baaxul de kunkaay da tànga ma xol de léegi léegi loo xol <laughs> ay ngi noonu mbokk internet Sunugal 24 ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax di ñaanal ñi dëddu yàlla suñu borom yërëm leen xare leen àjjana ñi tëdd ci lal hôpital yàlla fëgg seen bopp ñu jóg ñi caabi féetee ginnaaw suñu borom ubbi leen ah, ñun ñu fi des yàlla may ñu wér ak kattan may ñu dooley poos musal ñu ci ah, accident la may ñu njuumte yi lépp lu fi rafet rek nga xam ne suñu boroom la lu fi dëng amaana xel yi ñoo ah, xaw a matadi di leen jox dig daje xam naa ne beneen émission lay doon fi la ci suñu gaal 24 ak ci suñu biir émission suñu gaal di ko jaajëfal lu bare bari dóor moom laa àndaloon ci technique bi mënuma ko fàtte benn yoon El Hadj Niang taalibi sëñ Abdou Karim bi borom dindi couture moo ma daal di génne ci tay baas bu yanj bile euh, waaye tàkko borom mariste moo ma daal di defal maquillage bu yanj bile moom tam maa ngi ko jaajëfal lu baree bari euh, Mbène Diop madame Fall moo daal di jaar ci euh, cheveux bu yanj bile ah maa ngi leen di jaajëfal lu baree bari merci beaucoup moom tamit nga xamante ni moo di madam Fall Serigne mustapha maa ngi koy nuyu lu baree bari di leen jox rek dig daje xam naa ne beneen émission lay doon jërë ngeen jëf